mbégte ak contentement ndax maa ngi jàkkaaroo suñu jëmm ji toog nii Guy Marius Sagna koo xamante ne c'est un citoyen modèle référence pour tout jeune comme sama genre yi nii tey dafa nekk koo xam ne dafa légi dafa légitimer l'activisme parce que lépp lu mu def nii c'est lu érodi def la ma bëgg nag ngeen boole ma ci les amis de kii maa ngi lay féliciter di féliciter waa ñoo lànk combat bi ngay mëne defaloo sa bopp c'est pourquoi je considère que Guy tu es une école civique ton attitude est la bonne te nag bugatuma nag nga dellu kaso je considère monsieur Guy Marius Sagna comme une école civique Guy est l'incarnation du bon citoyen parce qu'il est exigeant et conscient votre route est, celle que doit emprunter tous les fils de ce pays et Guy na nga xam ni à partir d'aujourd'hui fiñ la tegoon teg nañ la fu ko raw bés ni ki tey ndax da nga ko wone d'ailleurs dañuy wax ñu nekk ci nguur bi affaire bi nekkatul place de l'Obélisque c'est partout dans le Sénégal partout. c'est une complicité inébranlable que rares, quelques rares personnes peuvent comprendre. je suis pas si brave comme Guy sans doute c'est pourquoi Guy je veux te dire que c'est le début du commencement. parce que l'Afrique va mal et tu le sais. Tout ce qui se fait aujourd'hui, tu le mérites et tu mérites amplement. On voit que c'est le parcours d'un homme qui est héroïque.